dafa bokk ci seen façon kër Cheikh Al Hadji Malick yàlla dalee na natt li ñëpp yi ñoom a bëgguñu ko mooy ak cëriñ xam nga lu tax bëgguñ cëriñ ku xas ba nàmp wilaaya sa yoon dootul nekk ci cëriñ te ñoom ci battu wilaaya la màndi wala boo ñëwee dañu camoufler wàccee seen bopp walla la la man maag yow rek a yem nga di dof ne ko waaw maag yow a yem fekk tey rek ngay dégg wax naa ko démb ca sànnaar ma ne léeg-léeg nga dégg ku ne Seydi El Hadji Malick nee na xam nga lu tax Seydi El Hadji Malick radiyallahu taala ko xam nga ne Serigne El Hadji jubul jubul doo ko dégg jubul daa jubul Serigne mo Serigne El Hadji jubul daa dëgg Seydi El Hadji Malick ngay dégg parce que du Serigne Serigne Tiwaawan jubul mosoo dégg Serigne Tiwaawan. te yëg ngeen ne mooy sëriñu waa Tiwaawan ndax almakaanu bil makiini makka rasul sayidna rasulillahi sancu ko te ku ñuy tudd makka tey rasulillahi tax Fass Seexu Tijaan seex sancu ko te bu ñuy tudd Fass Seexu Tijaan a tax dëgg la wala déet kon alaaji Malick sancul Tiwaawan xaa li kura Faal moo ko sanc téeméeri at Malick alaaj faawaat toog faa teg tànkam te tey buñ ne Tiwaawan xel yépp dem ci Seexul Haaji Malick te doo dégg mukk sëriñ Tiwaawan parce que du sëriñ de alaaji Malick du waliyu maam Maodo du borom xam-xam déggoo ma Maodo du waliyu mooy formateur waliyu du borom xam-xam këram la ñuy nekkee xam-xam maam Mansour ñu bindal mu ne imaamun bihi yuqtada lil huda wa ruknul anami allazi man du sëriñ ñu ne ah mu ne xam nga kan la mu ne mooy njiit bi nga xam ne ku bëgg a jub ci moom ngay wéeru fa huwa al imaamu allazi saxat imaamatuhu jërëjëf indi wasiratuhu min ahsani siyari jërëjëf mari a murtakiban amran yuhaabu bihi bal kaana muxtafiyan min sayidil basari jërëjëf yàlla na ko yàlla nangu ci barke Cheikh Alhaaji Maalik jërëjëf Moustapha jërëjëf waay Moustapha yaa baax daal caam yéen a baax jërëjëf Maodo Maria murtakiban amran yuhaabu bihi dund na ba xëy génn àdduna kenn mos a gis mbaa mu dégg luñ naan bu lu woon ak nangam de alaaji Malick léppam eskay benn waaye dafa ma ne yow da ngay tudd Maodo lu bari ma ne ko man nag fi may gis ab kon sama yaram seddul mu ne am ne ko bu ma yàlla boole yow damay seet noo mel ci Maodo ak njabootam soo leen fonkee maag yow bismillah boo leen fonkul nañ ñaanalante yomal am yàlla buñ gise ku may invité ci dajee bañ may tudd Maodo jëlal sa rajo micro tiitalum ma wax alaaji maali rek ama tiital dont la benn minute la bëgg naa waa ji ne ma dama lay laaj alaaji maalik si maamu sëñ Mulaay lu mu am lu ko ko may ak kuy Cheikh Al Hadj Malick ma ne ko bu ci nekk ci benn seconde laa la koy wax déggoo ma li Maodo am lu ko ko may ak kan mooy Al Hadj Malick ak lu tax mu raw ñëpp ma ne ko ci benn seconde laa lay wax bu ne ñett yëpp ci seconde laa koy ton li Maodo am lu ko ko may ma ne ko benn ñaara ko ko may fi'lul ma'muuraat wa tarkul manhiyaat lu yàlla digle Maodo ci man lu mu tere kenn mosu ko ci dégg moo tax yàlla tànn ko may ko li ko may sëñ Habib mu ne ma waaw kuy alaaji Malick si ma ko boobu ci genn wàll seconde laa la koy wax mu ne ma mooy kan ma ko mooy nitu yàlla wala sëriñ bu mos a dem jàkk maamu sëñ mu laay a dem jàkk quelle erreur waa ji ma nag sa waay wax nga lu garaaw ma ne ko déedéet yow yaa dégg lu garaaw ndax xamoo li may wax mu ne ma lu tax ma ne ko gars dañuy tabax jàkka tabax kër dëkk ci kër gi di dem ci jàkka ja maam moo ne dafa tabax jàkka tabax kër dëkk ca jàkka ji di dem ci kër ga daanul dem ca jàkka ja daa dëkk ca jàkka ja di dem ci kër ga kon moo doon mos ta dem jàkka quatre heures moins dix la Malick Fawad di dugg ci jàkka ji minuit dix la Malick Fawad di génn jàkka ji waaw kook ca jàkk ji la dëkk wala ca kër ga la dëkk alaaji Mansour keroog ba muy aji màkk sunu maam ju baax ja ba mu tàggoo sëñ Haadi daf ko ne mbaa yëg nga ne ñay aji ñëpp bokkook ñoom boo fa dajee junni milliards nit bokkook ñoom lu tax mu ne yow dong yaa ci am baay boo xam ne ba nga gënee na ba am 22 ans mosoo koo gis bëccëg ci kër ku la ne gis naa Malick Fawad bëccëg ci kër waxul dëgg kenn du ko gis lu ci jàkk jooju bàyyi nag ku mu yaa toqante la koo yéen a yem ku la tëkkaleeg boppam mu ne ma waaye lu tax maari raw ñëpp ma ko boobu ci dammitu seconde laa la koy wax dammit lan ma ko moom rek xam nga lu ba may li ma am mën a a ko ñaar a gën a métti ci àdduna àdduna ñaari ci gën a métti musaba samp ko yàlla na déet ak ko yàlla na samp naa ko ak ko yàlla na samp ma ko nga ne danga ko samp ak a jafe kuy waaja dee nga ne danga koy faj ñax mu wow nga ne danga koy roose billahi balaa naat daga dee un milliard facture ndox ngay fay te ndox mi su du dañ di waaw rek moom ñax mu ne ma ne ko xam nga Maodo li tax mu raw ñëpp mu ne ma ne ko moom kese rek dong laa xamagum ci koo xam ne ndeyam ak baayam gisanteeguñ ñu bind ijaasa buy doxal àdduna bi mu di ko xaar looloo tax mu mel ni mel yëgu loolu li cool yi bari bari tukkulóor moom kenn du ko nax kenn du ko manipuler tukulóor yaa ngi ci réew bi fees dell a wilaaya xam-xam kenn mos sa dégg ko contesté ne alaaji Maalik ko doon Cheikh Omar kenn mosu koo contesté bu dëgg ñu contesté ko xam nga lu tax Cheikh Omar a toog ca woore fonde ñu ne ko soo dee ku lay doon mu ne bil jihaadi am bi sirri sirru tariqa tijaaniyya bi ne ci man wala jaasi ji ma jocci bocc di jihaad ban ngeen di laaj ñu ne ko bil jihaadi wa bi sirri mu ne bil jihaadi ibni Amadou Cheikh jaasi ji su ma fi jógee Amadou Cheikh na ko jël fu mu yem na fa yem kenn dootul am ndigal la wa bi sirri ñu ne ah mun a jàngee fatiha jàng fatiha gars yi ne bismillahi arrahmani arrahimi alhamdulillahi rabbil alamina arrahmani rahimi malik mun a taxaw leen si malik ari tott nap kookaa doon mooy sama borom sek kookaay maamu sang bu tedd xaalis ku may jox xaalis yàlla nanga si yàgg ku ma joxul xaalis yàlla na ma yàlla musal ci yow lu ma daal ñu dul joxe ma ko teg jërëjëf ustaas